jini lam abide rafinda sofe idu bin harite mawdo jini lam abide rafinda sofe la décision médicale de l'arbitre Alboury ngi noonu Alboury am na ndam nee na leen ko tëggal leen ko tëggal leen ko tëggal leen ko ndeysaan fecc leen fecc leen puusal waaye kon ci puusal ma ngay dem ma dem tàccu leen dana dem tàccu leen tëggal leen ko tëggal leen ko mu def sabar a eh waay déggal loolu déggal loolu tëggal leen ko tëggal leen ko nga ni dagit samba cakin taki gi gi ah, samba ki gis a ramba cakin gi samba cax ramba Albouri waaw ba nan waay lay la la waay defal lu la neex Albouri bul jooyee ne bul jooyee bul jooyee Albouri Albouri bul jooyee Albouri la la Albouri la la maa jëlee sama bopp. newoon naa la kii. TikTok moo ñu boole. mais du lamb. samay adversaire du ñuy. xale bu ndaw. préparé. pare. nee naa leen ne suqutulu. suukar du bàyyi neex. waaw ah. ku naan benn ñaata. ku naan saam ñaata. bokkuñu. du yoon sax may xëy ak benn nit. alburi ñu bëri sama sama maam sama maam. sama maam. Eh, eh, eh. bu fekkee ne mu sax la tooñ. day bàyyi man ma fukk. mu boole. ma góor bu su ko yëpp ku mu saane yàq ay waxam ndeysaan ku mu saane yàq ay waxam di ko defaraat borom kat sa xoon Alboury Alboury Alboury Alboury ñu bëri comédien lan la teg nekk mbër nga ah jërëjëf yàlla yaa di yaa di dafa xar Saani Xuduxan. foo jàngee loolu yow. Oustaz Ara Oustaz Dia.